wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammad mooy nawrul ijaadi wal imdaadi wal istimdaadi mooy nawrul kawni wa sirril wujuud وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سادة السلام على رسول الله نيجي سنتي على بو باخ di nuyu jamaa bi di leen ndokkeel ci kalama seexal islaam alhaaj ibrahim a ñasi a kawlaxi bàyyi mu ne alhamdu mutlaqan li zaatil baari suma salaamuna ala almuqtaari basril wujudi markasil asraari sirru suuni majmail anwaari haqa qadrihi wa miqdar azim ñi ngi santaal ba baax di nuyu aalam yàlla bi yépp fépp foo xam ne islam yegg na fa ci ñaaree kalima yi nga xam ne mooy kalima tawhid te mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñoo ngi lay nuyu di ndokkeel ci baat yooyu waaye ñoo ngi nuyu waa Afrique di leen ndokkee ci kalama Cheikh Ibrahim li bay wa ci africain yi bëri na lool waaye ñu ngi nuyu waa senegal di leen biral nuyoo gannaaw bu la Cheikh Ibrahim birelee nuyoo bu sell Baye moo wax ne fa Sénégalu ya wi taxta zillu Muhammad ويعبد ربا جل سعنا موحدا فمن زن زن غير هذا فزنه سقيم عليل باطل لن يؤيد رويدكم أهل كنيستي لن تروا مدى دهر أنا قد ترنا محمد صلى الله عليه وسلم كيو كلام الشيخ إبراهيم لا تشيبي السنغال واي نيو شيخ الإسلام di ko ndokkeel ci faydu bu bi bu ñu indil te booy faydu boo xam ne mi ngi jóge ko ci borom bi subhaanahu wa jaar ci Seydina Muhammad jaar ci Cheikh Ahmadou Tidiane wàcc ci moom lan mooy sama dalil bàyyi ma ne bi rabbi anil ni min bahru taha faydatan suma faydatan bit tawali bàyyi ne ko naj téye ko li la xam ne bàyyi moo mën àddina bàyyi moo mën àllaaxira <laughs> kooku mooy Cheikh bàyyi téye faydu bi xool gaa yi xam ne ñëpp lott nañ bàyyi na das te ci pii ba ko neex ne fa faadu mi nii dururul maani doona taamuli wala waaye man zaqaha yasiru seyrul abadi yejnil maarifi bi faydil madadi kon ñu ngi santaa lu baax ci loolu yëpp. Baye mooy international kon kuy international léegi Babali mooy international moo tax Baye doon national Baye mooy international. Baye moo tax baay ba muy wéy wéyee da nga dégg ma naan li Hong Kong ka min Bangkok jaal xaddima ko yow ay la xas fal wu ataala kan moo xam Hong Kong ak Bangkok si sëriñ Sénégal si. léeg-léeg gars yi bu ñuy def ay conférence mbaa bu ñuy def gàmmoo da nga dégg ñu naan bi nekkoon États-Unis ñëw nañ déedéet daayira États-Unis ñëwuñ daayira Sénégal yi demoon États-Unis ñooñu wàcc waaye bàyyi sa moom buy def buy def moom ah cëm ah li pekke na min kantu na bise naagi waqalu tabdu al qadbantri haala bi yoofin li kongu min dawala ba maqsadi qudumi kan mooy Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu bi bari wal bari qad baasu wasem asto fil hawa mutajamjima kii mooy Baye Baye mooy international ñu ngi ndokkeel baax ci ñëpp ci loolu maa ngi njër encore une fois maa ngi waat Baye Mbaye mbooloo mi sa mbooloo Mbaye la gamuñ kenn ku dul sa papa gëmuñ daara daara nag gamuñ dara xam nga kuñ gëm cheikh al islam te it moo jërë gëm nag ndaxte cheikh al islaam la tax mu neex a gëm moom sëriñ la bokkan dégg li wax mu ne sëriñ xam nga may kanam ñu naa mu ne koo xam ne da nga mën a fii ak ku bëgg fii xool bii bu neex rek nee sëriñ ba dem ba jigéen nga summeeku mu summeeku du loo dugal de dafay summeeku nga summeeku nga sóobu mu sóobu nga fay boo ne ba mën a fay mu bal nga fay fa la neex ñu ne ah mu ne waaw waaw kon ko a afootu man muy sabaru jal as maa ngi nuyu ñëpp la leen di leen ndokkeel